asalaamaaleykum mbokk internet di ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu am mbégte dalal fii Abdoulaye Diacko Mankadiang mu nekk euh, budoka di def taekwondo champion d'Afrique à plusieurs reprises je pense que deux fois nekk nga ko champion d'Afrique participer à des compétitions de rang mondial nekk fa tamit euh, en tout cas ndaanaan dem nga ba nekkoon ci septième au niveau mondial euh, Mankadiang ñooy lay jaajëfal bu baax bu baax a baax sax di la di la di la dalal fii ci kër gi bàyyi la nga nuyoog mbokku internet yi. salaamaaleykum maa ngi nuyu suñu mbokk téléspectateurs yëpp di ko tudd di nuyu yow Kande euh, ne maa ngi tudd Abdoulaye Diako nga je suis chinois quatrième dan en même temps je suis capitaine de l'équipe nationale taekwondo conseil. Mm-hmm. Euh, nga nga nga am nga mën nga ñëwaat tuuti ci sa parcours de judoka de combattant surtout. Euh, loolu dina ma neex trop bu ma wax sama jaar-jaar parce que boo xoolee man bu may tàmbali taekwondo c'était en 2005 2006. laa dugg taekwondo. au début je faisais curigi mooy combat mais à un ma tàmbalee commencé liggéey ndaa dem si biir euh, permettre wutuma ma may ma yëg compétition combat parce que boo daan euh, boo daan gaañu si tànk bi yooyu noonu. bu yéegi pour dugg stage production doo mun a liggéey parce que daal sécurité yi nga daan sol mhm. c'est en ce moment la vie si pomse bi boobu naa tàmbalee mu nekk euh, di def pomse euh, période boobu maître Babacar Ndiaye maître Camara ak maître Bamba Mbaye ne ñoo fa noonu équipe nationale doon ñu encadré si lancé boobu boo xoolee ba xool sama période boobu 2012 ba 2014 mun naa ne entraîné naa ko te bu sama si absenté parce que dama doon mbooy si ñetti nit ñoo xamante ne muy que ce soit coach Babacar Ndiaye. Mm-hmm. ak coach Camara ak coach Bamba dama leen doon xool ñoom ñetti bi ñu daan def équipe technique gisuma nit bu leen mën ma ne ñett ñi boo jëlee ku nekk li nga mën nga jéem ko def si yow xam naa ne di nga gën a taxaw. Mm-hmm. waaw boo xoolee sama carrière foofu la tàmbalee mu ñëw en 2006 eh, boo xoolee si carrière national niveau national ak niveau Dakar boo xoolee niveau Dakar j'ai compétit j'ai pris ça plus de cinq fois. Hmm. plus de cinq fois. niveau national niveau niveau. régional région. Hmm. Dakar plus de cinq fois. Hmm. def naa ko tamit jël naa plus de cinq fois. c'est pour cela j'ai décidé maintenant niveau national ma bàyyi ko pour ñeneen mun a ñëw. bon ko jëw mun mun a évoluer niveau national. boo xoolee sama première sortie à l'international c'était en 2016 perdu ça. Euh, am en Égypte euh, ma de foofu quart de finale laa ko perdre. Mhm. quart de finale. après ñu ma àndaloon yokk ma doole xamal ma ne euh, du la reyul da lay gën a yokk doole. Mhm. et puis que et puis que tu es jeune c'était un début aussi. voilà c'était mhm. ma ñëw xaw ma mais sama deuxième sortie 2018 euh, bu may dem Agadir au Maroc si la décroché sama première médaille d'or africaine. doomu ménage doo africain hmm. si ngeme sey ko ci Bamba bu baax a baax a baax naa hmm. ko ci master Bamba Mbaye parce que dafa am loo xamante ne xëy na da doon nelaw si ñun yéen yée na ko yée nañu ko won ñu yoon bu baax hmm. moment bu ma jógee foofu nag sama premier ménage doo ma doon xool man est-ce que dinaa mën a demal sama bopp j'ai eu à participer sama premier open en 2019 open open fan la woon en France boobu laa demoon di yéeg dama dem sans coach sans dara man kese maa demoon foofu représenter le Sénégal au Sénégal am médaille d'argent bu la Guinée xam Open France Open France ma am médaille d'argent boobu moo nekk sama deuxième médaille mm-hmm. internationale après ñu ñëwaat préparé pour dem yeneen Open ak yeneen stage mm-hmm. encore mais yàlla def euh, boobu la pandémie bi ñooy mm-hmm. activité yi taxaw boo xoolee activité bi ñu taxaw it métti woon na trop. muy muy deux bi. ak deux mille vingt mais par la suite. boo xoolee balaa pandémie bi tam jot nañ participer les champions du monde à Taïwan. Hmm. foofu mu fa demee demoon nga euh, voilà demoon participer woon na. Hmm. mais boo xoolee amoon nañ fa participation boo xamante ne la meilleure participation active parce que amul benn dëkk africain bu ñëwoon. Hmm. def dialogue yu mel noonu moo tax yi desee nañu trophée boobu. boo xoolee boobu sama sama première sortie mondiale la woon. ma yem quart de finale parce que dama ne l'histoire se répète. coupe du monde quoi mën nañu ko noonu monde nekk ma nekk quart de finale waaw sama premier sortie champion d'Afrique waaw ma ñëw deuxième bi mondial nekk euh, quart de finale ma nekk quart de finale deuxième ma nekk champion d'Afrique mhm. kon dama ne l'histoire se répète waaw mais gis nga yàlla nit ki da ngay bëgg mais yàlla ay dogal mhm. yeneen champion du monde bu mu ñëwee pour ma participer def nañ jéego yëpp fédération euh, ministère amul moyen pour yóbbu ñu fédération amul moyen man tamit ma jéemoon liggante samay moyens comme que j'avais pris ça à avec ak coach bi. jéem mm-hmm. naa liggante samay moyens yëpp. mais dama dem ba day ñëw mu fédération xam na ne nee na def na réservation mais confirmé wu réservation pour mën a dem participer parce que jëloon naa samay samay matuwaay yëpp pour mënoon dem parce que am na ñu ma doon jàpp. say matuwaay mooy li ngay voyager. Mm-hmm. peut-être li ngay dundee ak peut-être équipement yeeg yooyu. effectivement loolu la woon. rek la woon

yeewa di benn bataille mais bàyyeeku. Hmm. après 4 mois après 3 mois avril la woon. boobu c' est mais après au mois. Hmm. mais li nga xam ne dafa garaaw ce qui veut dire que yéen fédération sénégalaise de taekwondo n'a pas de moyens pour mën a accompagner ces champions ces compétiteurs équipes pour ñu mën a prendre part ay open au niveau mondial. effectivement loolu loolu le euh, ministère euh, buy jël en charge. champion d'Afrique yi day génn ak champion du monde. maanaam coupe du monde bi ak coupe d'Afrique bi quoi pour mu gën yomb quoi ci internet yi. coupe du monde day hmm? taekwondo ak coupe d'Afrique de taekwondo yooyu rek la leen di accompagner. alors que yéen xam nañ ne seen préparation pratiquement pour nga mën a engager championnat yi mag yi. Mhm. ci ëpp nii lay amee. effectivement amul benn budget boo xam ne da leen di accompagner pour ngeen mën a participer. amul benn budget ci open yi parce que boo xoolee open yi yëpp ñun ñoo koy financé suñu bopp. yéen yéen yéen combattant yi athlète yi financé côté administration tamit boo xoolee lépp daanaka ñoo koy def. papier ainsi de suite ñoo koy defal suñu bopp après fédération moom lu muy def moom dañuy inscrit bu ñu inscrire jox ñu papier boo xamante ni bu nga dem tekki visa. moo tax loolu moo tax. mais est loolu fédération la quand même. waaw mën naa ne fédération parce que ñoom ñun bu ñuy buggee dem open ñoom xamal nañu seen jëmu bopp fédération amul moom ku jël athlètes yi en charge. donc donc du mbiru fédération kese mbirum état du Sénégal avec le ministère des sports. merci beaucoup man noonu laa ko mën a jàppee. ok mun mun war na dina mun a yokk loxoom. oui ci fédération mu jàppale fédération. Ah, parce que lu ñuy def ci football bi ak yeneen compétitions yi quand même war nañ ko mën a def ci. warul am ségrégation kumba am ndey ak kumba amul ndey. waaw waaw loolu parce que nit yi boo boo njabootee lépp war nga mun a xool ni ñu koy gérer. anam ah, parce que boo xoolee tey ndab bu ñuy am. Mhm. Sénégal bi ñuy représenté kon lu may yàgg wax. E, booy def ab marché yow ngaa dégg hymne national foog nga doon premier. Mm-hmm. dina dem ba gagné ba nekk premier doog a dégg hymne national. Mm-hmm. mais par rapport boo demee yeneen. ci match yi ndaw yi sosaan yooyu waaw. yooyu da dégg hymne national ba doog compétir. Hmm. loolu différence boobu war nañ ko mun a jàngaat xoolal ko jëm ñu bàyyi xel jàppale fédération yeneen niveau yi ci compétition yi merci beaucoup da ngay hymne national ba pare soog a compétir waaw tey boo demoon supposons bugguma index suñ ko waxee suñ bëri mais am na sport yu bëri fii waaw balaa ñoo joué dañuy teg hymne national euh, comme ay handball ak yooyu noonu balaa ñuy yéeg dañuy teg hymne national loolu mooy dëgg ñun nag balaa national. foog nga dem final. foog nga dem gagné. gagné ba pare foog nga dégg hymne <laughs> national. loolu loolu mais loolu dëgg la. parce que en réalité bokkul ah fale da ngay gagné ba pare il foog nga am ndam ba pare. pour soog la bàkk. fare dañ lay bàkk te amagoo ndam on sait jamais <laughs> am na solo mais yow euh, souvent ci seen seen seen seen secteur bi seen seen seen seen seen euh, activité bi ngeen di pratiquer maanaam seen euh, ci ci championnat yi ngeen di bokk dem nekk champion d'Afrique ñëwaat est-ce que état du Sénégal mës na la recevoir yow. waaw man ba ma nekkee champion d'Afrique ba léegi personnellement te du man kese maa nekk d'Afrique y a d'autres champions d'Afrique qui sont benn yoon 2018 euh, la ñu ministre 2018 euh, bi ñu jógee fee euh, le ministre Pata Mataba recevoir woon nañ. Mm-hmm. mais depuis lors pour préparer les oeuvres bu ñu ñëwee ba léegi ñoo ngi wax ñoo ngi crier ñoo ngi def lu ñu mën par rapport mais ba léegi kenn suñu recevoir et supposons bu ñu jógee juillet des derniers champions d'Afrique ñibbisi nañ. juillet bi passé. bii passé. Mhm. ñëw nañ may ministre kenn recevoir. boobu nga nekk champion d'Afrique encore. deuxième fois deuxième fois. nekkaat le meilleur combattant daa manqué te. Matar Ba recevoir la à l'époque. ba léegi ministre bu fi ñëw tamit yëm nañ def. mais yéen bu ñu la recevoir kon est-ce que yéen kon am ngeen ay prime yi nga xam ne dañ leen koy jox comme joueur yeeg ak yooyu. ay prime de participation xanaa terrain sax lu mu dee dee de kon ñeen amoo leen yu mel noonu. waaw léegi bu wax la prime ba ñu ñëwee ba léegi kenn oowuñu ko jox ñu recevoir ñu ku ñu recevoir am na am sa amoon leen prime de ah, participation surtout champion d'Afrique nga nekk ko état du Sénégal mosul la rencontré deful démarche yi sax pour dajeeg yow wala ak yooyu na wala yow yaa toog jàpp sa jaamur dafa man athlète la athlète tey man athlète la nga athlète tey bu demee booy ñëw toog di expliquer kon ainsi bu mu bëggee ñu jàppale ne wala ñuy gestu leen fii mën a gën a avancé parce que Sénégal lañ nekk en fait. Mhm. boo xoolee Sénégal actuellement en Afrique taekwondo poussé ba Sénégal premier africain. Mm-hmm. en Afrique il est le premier. Mm-hmm. boo xoolee septième mondial la ñu jógee ba ñëw ba dixième mondial. Mm-hmm. manque de participation. waaw waaw kon boo boo gisee ñiy joytu loolu ñu koy expliquer euh, pour gars yi mu dem bàyyi xel pour mun a jàpp. non mais c'est pas normal quoi parce que loolu yow mënoo ko wax mënoo ñaxtu mënoo def yenn revendication yi mais quand boo représenter sa réew a un certain niveau surtout nekkoo ko fa troisième ne ko quatrième ne ko ndàdd. nga nekk champion d'Afrique yor médaille door hissé haut drapeau réew mi mais war nañ leen jox tayoo war nañu leen jox benn gëdd war nañ leen jox benn considération dajeek yéen sax ce ne serait-ce que pour vous dire merci mais loolu mooy dëgg ko loolu mooy dëgg ministre bi nekk fii xam nañ ku baax la xam naa ne peut-être euh, dafa dafa toogagul bu baax mais mais war na leen recevoir remercier leen permettre leen ngeen recevoir sax ah, doléance yi xam ban problème la seen compétition bi di rencontrer ban ah. problème yeen atelier gi nga xam ne yeneen nekk ci taekwondo bi wala ci arts yi yi ngeen di dajal ñu xool ndax lañ koy mën a améliorer loolu war na mën a nekk xanaa loolu de war na mën a nekk parce waaw góor am benn lekk loo xam ne da nga koy foofu mhm. da koy may doole tey boo mhm. xoolee man amoon naa benn lenn loo xamante benn benn métier boo xamante bu ñu ñëwee recevoir ñoo fi yooyu ñuy préparé ko mais bés bu ñu ma boolee si nominé ANSP bu ñu ma jox euh, comme ñu jox ñu trophée trophée kii comme meilleure participation. bu ñu si mm-hmm. boolee. Mm-hmm. man dafa amaan leneen lu mu yee si man. franchement pas dafa am leen di di di profiter di remercier Abdoulaye Thiam euh, président ANSP mm-hmm. di remercier de passage di koy nuyaande euh, actuellement moom la ñu nommé sa am na président de AIPS. Hmm. Euh, di koy ñaanal yàlla yan bu mu yebal ñu mën ñu mën ci wax. Hmm. en tout cas lu geste bu ñu def noonu defoon na ma ko mais dama ne ce sont des arts martiaux. arts martiaux lañ ko defar en fait. Hmm. moo tax dama gën a rafetlu ba lii geste boobu. mun a gën a bàyyi xel man chaque fois loolu laay wax lu ma ne man man maa fa nekk mais boo fa nekkee man terminé le deux ans tey bi ñu ma gagné champion du monde. mais dafa dafa dafa rafetul xam nga nit ñun dañu war a romb fu ñuy raayante dafa rafetul nit représenté réew lëm lu mel ni Sénégal gis nañu lu président di def ci football bi ëppale ñu leen tous football arts martiaux su mu tudd euh, sport la ni ni ko karaté nekkee boxe wala sax taekwondo bi ngeen di def ñoom ñoo yem sport sport la rek bi ngeen di dem amul ñaari drapeau yi ngeen di yóbbu benn drapo la te drapeau Sénégal la bi ngeen demee waxuñu Sénégal tudd benn région Sénégal donc la ñu wax. Sénégal la ñu wax dégg eh, donc boo ñëwee représenté sa réew ba nekk ci benn niveau bi hisse le drapeau ci kaw boo ñëwee loolu dafa war a doon fierté pour mën a soññ ñi si des sax pour nit ñi di am cawarte di def ak taekwondo di def sport mel noonu. parce que Sénégal tamit du football kese. parce que fu mu toll nii xam nga Sénégal loolu moo war a jeex déjà am na fi championnat. defe naa coupe du monde africain de boxe mu ngi fii di xew fii mais kenn kenn déggu ko kenn waxtaanewu ko parce que peut-être joxuñu leen dayoo bu toll noonu mais loolu dafa war a jeex ñun yéen boo leen ko mënul ñu wax leen ko quand même xanaa loolu mooy dëgg nag dañ koy wax boo koy mhm. boo su leeree sax wax ko loolu mooy dëgg nañ leen nañ nañ leen boole ci ci loolu moo leen di yàqal ci lu bari sax d'ailleurs ñoom seen lépp politique la dañuy jël parce que football bi moo am masse moom la sénégalais peut-être di gën a coow làmb moo gën a bari bruit ak yooyu noonu mais yenn tolloo yéen ñëpp ay sportif ngeen yéen ñëpp mérité ngeen quand même ko état euh, yëkkati lañ ci kaw kon yow sa prime li nga wax nii rek su ko jotagoo ko. man de joto benn prime ak sa ñaari euh, médaille d'or yooyu nga am yëpp. mu jotee non médaille d'or premier médaille d'or 2018 boobu jox nañu suñu prime. Hmm. juste après balaa ñuy doon dem champion d'Afrique ñi ñuy ñuy ñuy gagné nii football di gagné. Hmm. mu toll nii euh, quelques mois avant fayoon nañu suñu prime. prime participation au niveau africain au niveau africain lañ hmm. ko fay. d'accord mais bii nga mujjee jël nii. bii leen. ba léegi nii may wax yow nag bisimilah la. mais c'est nag si def du si mën parce dara bu si bëgg a defoon dara kon sotti na. dafa ci dara dafa ci dara parce que jafe yéen bari woo leen. football équipe nationale joueurs yi la jox staff beeg. équipe mun mu tudd médecin yi ñëpp la ñuy jox ñoo leen gën a bëri fuuf te def nañ ko ci coupe d'Afrique mooy A bi def nañ ko ci Lionceaux yi def nañ ko ak ñeneen ñeneen buñ boolee ñëpp yéen tolluwoo leen xaaj bi man na lañ leen lu ne te dañ leen ko war a jox yéen a ko moom lool mooy dëgg léegi loolu bu weesoo déjà ban message nga am di ko envoyé déjà euh, lu ministre du sport mu dëgg ko moom mu dëggal ko boppam xam ministre du sport ba Diatta ministre Yankhoba Diatta kon lu may wax chaque fois moom la yàlla def ñu ne si nekk. ku baax la dëgg naa ko baax la. message bu ko déggee dina def dara. waaw non moom la yàlla def na nekk si ñun bay sport. et ba léegi ñuy wax na fool muy jege fédération bi. dina xoolal athlètes yi surtout la taille pondue des sports ak marché dañ ñu xool parce que du champion d' Afrique wala champion du monde dañu la béykat nañ bi ñu mën a jàppale parmi. open yi ñu nar participer parce que open yi boo ko participer wu. doo mën a participer compétition mondiale doo mën a dem champion du monde. waay di fay xalaat parce que toog fii di participer parce que toog a. loolu mooy dëgg foog nga jéem a bëkkante gars yi di nga la ñuy nekk. Mhm. mais nga resté fii au Sénégal kese. tey dama koy jël exemple si football football bu qualifié wu champion du monde foo mu am ay match préparatoires pour champion te day calculer ak direction technique xool nu ñuy def jëm. financé ko moo baax pour ñoom ñu liggéey. la di leen di accompagner di leen di ba pare nag ñu leen di prévoir ci construction yi ñuy tabax mooy stade yi ñu prévoir ñu prévoir en tout cas sport de combat yi pour ngeen ci mën a am seen wàll yéen tamit comme ñu defar benn stade bo xam ne spécifiquement daj ne déjee au taekwondo je pense que est-ce que am du yombul quoi. mais ñu ñu leen di sooraale ci ci ci construction yi bees yi parce que Sénégal fa nekk ci logique defaraat euh, stade yeeg ak yu mel noonu nañuy nañuy prévoir euh, sport de combat pour ñoom it ñu war a mën a am seen wàll ci mbir mi. muy dem ñeneen ñu nekk suuf fu mu toll nii xam nga la dëgg yow waroo woon concentré wu ci leneen lu dul équipe nationale de kii de taekwondo champion yi yëpp yéen foo fa nekk état moo la war a prendre en charge toppatoo leen ngeen mën a préparer booy ci école yi. ñuy ñëw ci quartier yi ci département yi ci commune yi ñëw ñu am équipe am championnat bu baax au niveau national parce que fii nii nii condition yi nga wax nii yéen mënoon leen defar ay championnat yu baax fii ci réew mi ah. non parce que y' a pas de sinon da liggéey fale jël sa xaalis. dugal ko ci ci taekwondo bi. te loolu mënu nekk. tey boo seetee booy dem open nii des fois nga dem déposer sax kon lu ma lu may doon expliquer maa ngi ko doon waxtaan sama benn responsable ma ne ba damay dem déposer sax. visa duñ la ko jox te nga nekk champion d'Afrique. doo am visa parce que parce que maanaam moyen yëpp yu yu tënk pour nga mën a dem. Euh, waaw doo ko réunir waaw doo ko réunir parce que yow yaay dem diggante lii yow athlète bi yaay dem doxi ji lee yaay doxi jee même bu dee tamit règlement bi ñoom foofu lañ toll ak ñoom. par ñoom xëy na euh, fédération xam na ñoom lu tax ñuy doxalee noonu mais war nañu gën a mën a bàyyi. amuñu benn raison. amuñu benn raison mën a bàyyi xel athlètes yi surtout si côté administration nañu gën a bàyyi xel man hmm. côté boobu laay ñaan ñu leen di yombalal papier yi parce que parce que nekk athlète liggéey wàcc parce que tey Sénégal comme quoi qu'on puisse dire maa ngi koy dégluwaat Gomis du koy répété mu ne air sport au Sénégal c'est c'est c'est du suicide Gomis waaw maa ngi koy déglu benn jour maintenant bu koy wax mu ne parce que nekk sportif Sénégal dafa métti hmm. tey da ngay liggéey wàcc am na loo xamante ne lu bëri yow yaa koy doxal sa bopp. boo hmm. amoon maanaam tey boo amuloon ab xëy tuuti yow lu bëri doo xamante ne du sotti sa ginnaaw lépp yaa koy autofinancé sa bopp. Hmm. Hmm. loolu mooy dëgg kon yàlla na barkeel. déjà tu as message à waaw di profité euh, rek kon euh, lu may wax tous les jours euh, di nuy la famille des arts di nuy sénégalais yi di seetaan di profité tamit si plateau kon nu ma koy waxee di remercier waale le le le maire. Omar Cissé maire de la ville de Rufisque bi remercier vous pas par rapport son soutien bu ñuy def ak le président ak le maire euh, Baba Mbow hmm. par rapport parce que dafa am ñoo xamante ne ñu nekk technique même bu la joxul même bu ñu la joxul boo toogee waxtaan ak ñoom sef xel xaw a dal tuuti hmm. Hmm. parce que dina am leneen li ngay sax nga xam ne ñii ñoom lay bàyyi xel wala ñoom lay jëte xëy na moyen ñoo fa nekkul damay profité di remercier ñëpp di remercier la famille des arts ndax Hamidou taekwondo particulièrement mm-hmm. ñuy ñëpp noo xamante ne ñoom ñi dinañ déglu message bi mm-hmm. di profité di continuer di wax euh, monsieur le ministre nañu jën a bàyyi xel mu jàppale ñu mm-hmm. di jéem a comme que Sénégal premier la nekk Afrique dixième mondial nañuy jéem a jàppale pour ñuy jéem a yéeg ci plateau mondial pour première fois mu nekk loo xamante ne te septième nga nekkoon ñàkk participer au PNI moo ko yóbbu ba dixième moo ma yóbbu ba dixième mm, parce que lu ñuy bañ xëy fii rek dee ñu naan may hommage à maanaam l'ambulance <laughs> après la mort waaw xaw na doy waar yooyu amul njëriñ gis nañu seen seen seen seen xarit bi di waaw kenn dooy dooy kenn dooy ah dafa dañoo bàyyi ba mu mujjee génn àdduna ndeysaan ñu naan dañuy joxe ay prime yi kenn xamul non xaw na loolu intéressant loolu moom dafa doy waar dañ ko war a bàyyi quoi maanaam ndaanaan nañ la sargal ci bi ngay dund effectivement effectivement mbokk internet yi di leen jaajëfal di leen dig daje bi beneen yoon ak beneen invité di la remercier bu baax ah, merci beaucoup ci ci nangu bi nga xam ne nangul nañ ko boo gisee ñuy def lii dañuy bëgg a valoriser suñu champion yi suñu <laughs> ndaanaan yi na ko yàlla jëmal kanam. amiin amiin yàlla yeneen yeneen médailles au niveau mondial. amiin yaa rabbi amiin